xarit yi ñu ngi leen di leen jaajëfal ci teewlu bi ñu ngi waat euh, fii nga xam ne mooy euh, almariste amaat euh, mbégte jàkkaarloo nag ak ki nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko ndax kàddoom yu xorom yi nga xam ne. Euh, tàmm na ko yëkkati euh, jëmale ko ci sujet d'actualité yi euh, ñu ñëwaat nag fi nga xam ne kon mooy këru monsieur le ministre Youssou Touré nekk tamit ki nga xam ne mooy coordonné réseau enseignant bu alliance pour la république bu président Macky Sall nekk également ki nga xam ne mooy moo jiite. wala ba mu jiite woon euh, OIS euh, di syndicat boobu ëmb euh, instituteur yu nekk fii ci réew mi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ci dalalaat bi. maa ngi leen di fay di leen gërëm aussi. Uh-huh. si lu ngeen ma xalaat. voilà alors monsieur le ñëw ci sa portrait alors yow 55 ans nga am nekk xale sa sa sa profession mooy instituteur wax nañu ko léegi. te li nga xam ne mooy euh, réussite bu mag bi nga xamante ni daal euh, boo koy fàttaliku daf lay def lem muy prime scolaire pour euh, instituteurs yi ak formation diplômante pour les instituteurs adjoints yaa ngi fi institut loolu naka demee en en deux secondes. waaw dama doon def bi rek mais syndicat boo doon du nit du mbooloo bu bëri. du xaalis. Mm. wante nag yaakaar naa ne bàyyi naa sama waar. ba nga xam ne xeex naa xeex bu métti boo xam ne parce que du benn yoon rek la na ma. Mm. donc yaakaar naa ne tey jii jàngalekat yu si daara yu ndaw yi bu ñu amee prime scolaire yaakaar naa juróomi junne la maanaam ñu nekkoon installation bu ñu leen di tàggat formation diplômante ñaar yooyu daal sama xeex lu ma si gën a neex bu ma commencé xeex ba léegi depuis boo nekkee euh, Goudiry ba tey jii looloo ma si gën a gën a mag mooy OIS bi nga xam ne nii mooy syndicat bi nga wax léegi nga xam ne euh, bu ko réew mi xamee yow yaa tax. ni euh, mu mujjee mooy xar ñaar daanaka. waaw ngóor gu fi nekkoon lu sama syndicat rek la xar ñaar. xar nañ yëpp loolu lu ma naqati la lu ma métti la parce que tout simplement dañoo dañuy wan Sénégal que ñun motuñu nga nekk di xeex nekk ay nit as nguur nga nekk fa rek jékki-jékki. am benn jëwriñ bu leen woo jox leen luñ dugal ci seen deq yi rek ñu commencé am lustre indi lustre xanaa bu fekkoon am naa 90 pour cent ci lu bon parce que OIS ñëpp a ku xam OIS e rek yàlla ak yusra la ba tey sax dañ ma koy wooyee dañ may woo dañ may wooyee OIS e donc loolu moom naqadi na ma ba fu naqadi yem te ñooñu def ko seen place moom mu ngi safara moom duñ leen sax jugé. <laughs> alors euh, Youssou Touré euh, sa plat préféré mooy Mafé sa musique préférée mooy sama patron Youssou Ndour ak Baba Maal euh, réew mi lan moo la fi gën a énervé. lan réew mi réew mi mauvaise foi maanaam nit ñi Sénégal. gëm-gëm presque moo fi commencé doon denrée rare léegi jikko yi dafay yàqu loolu la ñu fi nekkoon gën a yàq def fi 12 dañoo yàq jikko yi léegi ku ñëw si ay studio Fatou dërëm moo nekk si gannaaw boobu donc loolu daal lu bon la nañ dellu si suñu valeur booy reeree sombi booy ndekkee mbaxal nga ndekkee ko mais daal jikko yi nañ ko defaraat ba nga xam ne kenn du yéene sa morom lu bon ku nekk boo jógee nga fexe ba ku néew doole sax nga dimbale ko jikko yi daal moo gën a bon moo gën a nekk. Euh, coono fii Sénégal jikko yi daa baaxatuñ kuy ñëw rek man bu ma sonnee bi kenn daa woo dama doon toog bay xoolaat sama portable naan sama portable bi damay damay foog ni dafa fay ndekete kenn woowul léegi président Macky jël pouvoir ma nekk président Macky Sall portable ñu bëgg bis bu nekk rek karaj c'est man maay diw maa nekkoon ak yow Nioro maa nekkoon ak yow Goudiri maa ngi fii Dakar nangam nangam nangam moo tax dañoo yàq jikko yi man bu ma daawut a wax ak yow boo sonnee du ma xaar ba nga am ndombo tànk ma ne lay woo di wax ak yow. Ah, am na solo alors ñu daal di dugg nag ci émission bi tout ñu dooree émission bi ak euh, li xam ne euh, fan yii yëpp mooy actualité muy yëngutu yu am seen parti euh, di violence bi violence bi nag ñu bëri jàpp nañ ne daal déception la ci askan wi ndax xaaruñu leen woon xaaruñu woon APR foofu. ndax euh, ba tey mi ngi des ci xel yi euh, parti démocrate sénégalais ak euh, yenn jëfin yi yéen ngeen bëgg a ñëw même pas trois ans ci nguur gi ngeen ngeen ngeen ngeen commencé màttante beeg plus téerante pistolet yi loolu ci mën a wax waa jëf si laaj bi xam nga violence maanaam jafe-jafe yooyu mhm. kenn xaaru ko si kër sa kantumaak si réew donc violence kenn du ko rafet te je crois que si suñu directoire président de la république insiste na si loolu uh, du doole xaste ak saaga du loolu la ñuy defaree dëkk mais nag du pour justifier ko mais violence ak politique seen ànd dafa yàgg depuis avant indépendance ba indépendance ba si nguuru Wade nguur gi ñu jógee lu ñu fi def si violence yaakaar naa ne ñun egguñ si sax si un million bi mais ba tey dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu te yaakaar naa ne nit motut nit motut euh, dañ si bàllu àq rek askan boo xam ne bi ñoom ñooñu ñu fal ñoo fal président Macky parce que bu ñu ko falee c'est parce que dañ ko wóolu yaakaar ne lu ñaaw lu bëri lu fi amoon euh, président Macky Sall ak équipe am dañ ko dindi ñu ngi si nag mais euh, nu ñu koy waxee rek yoruñu aussi une bagget magique am na loo xam ne li mënoo tëb tëb la rek mu jeex donc ñu ngi yaan yàlla lii amoon fi daal Euh, gëj fee am wala bañati fee am sax. waaw li amoon gëj fi am wala bañati fee am euh, dina euh, nakare gëm ndaxte jamono ji nga xamante ne nii Matam Farba Ngom ak maire ba Mori Diaw def nañu la ñuy defante ñoom ñaar ba ngeen def seen directoire de parti ba Mbàkke tamit jamono yooyu ma ngay boy comme mel ni yéen da a tëx wala maa ngeen def. waaw amee loolu yëpp si kii yi la am euh, opération de supervision yi maanaam pour jëm si local yi euh, loolu bu amee aussi xam nga man nekkuma fi pour di légitimer violence ñu ngi wax farba farba farba dëgg la am na lu mu def génn na pistolet ak ñeneen mais gisuma leneen lu fa am parce que gisuñu fa gaañante gisuñu fa reyante réew mi lu ñu fi xamoon mooy gaañ ana marto taala si lay kan moo ko dooroon ni marto taala si la ba bopp bi nga jaxasoo ak yeneen ak yeneen ak ñeer ñaataa dee place de l'obélisque ñaata lañ fa rey ñu defu dara donc si loolu bu ñu sax insister si violence boobu yaakaar naa ne président Macky Sall donc moo jóg woote directoire spécial pour naqarlu ko ñaawlu ko condamné ko ne bu mu fi abati maintenant nag ay nit lañu ay doomu aadama la ba xëy na tey def na lii wala génn na pistolet moo tax mu indi coow mais nañ seet aussi njëriñ bu mu amoon avant événement Matam yi parce que aussi nekkoon na suñ biir di xeex ñun ñu nekk euh, ànd euh, di xeex lu ñaaw lu fi nekkoon li pour mu dëñ donc nit aussi bu mu def benn euh, rëq-rëq rek benn erreur rek ñu bëgg ko jël rek condamné ko totalement. waaw mais man man discours ba nga tenir nii. wax dëgg yàlla am naa si am naa si njaaxle ndaxte premièrement nee nga légitimer wu violence waaye en réalité yaa ngi légitimer ndaxte yow au lieu kon nga nga wax ci bi nga xam ne nii moo bees dafay toll PDS moom ak ak régime am nit ñi fàtte nañ ko nekkatu si xel yi mais yow boo bëggee taxaw naan ay ma ma matto taal si laa yeeg ay violence politique ñoo ànd kooku tamit est-ce que loolu c'est un discours responsable. ci ci mel ne waxuma la ni dafa ànd. ah may ma rek non may ma non may ma may ma munoo maa wax loolu ma waxul. Ah, man bu mbirum Matam yi amee hmm. seen rajo ñoo ma woo laaj ma sama xalaat dama ko condamné totalement te ba tey jii maa ngi koy condamné violence kenn mënu koo nangu ak fu mu munti jóge ak ku mu munti donc il faut ñu condamner la violence mais nag aussi buñ si sukkandiku ne parti APR c'est un parti de violence parce que du dëgg. lu muy am si ñun bëriwul. mais yéen si bëri na. non bëriwul non yéen kay li ngeen wax ne kay actuellement mooy mooy partie de violence la ak itamit da ngeen a commencé fuuy ndax fuuy yi Macky Sall sax wax na ko lii nañ ko ci contrat euh, ci seen territoire ba samedi wax na ko fi. naka fuuy mooy lan ah mooy fuuy mooy mooy mooy. moo waral farba moom euh, euh, yëkkati pistolet tiré en l'air ak et cetera. dégg nga ak yeneen ñeent loolu waaw ma ne waaw ma ne waaw waaw waaw ma ne xam nga aussi histoire nit ki histoire nit. dafa yàgg. waaw comprendre nga bul jël benn sequence rek si histoire nit nga bëgg si taxaw mais ku nekk mën na juum ku nekk mën a juum. ku ne may ma rek may ma rek ku nekk waaw may ma rek ma ne ñun ay nit rek lañu. Mm. parce que nit aussi am na si loo xam ne li si moom euh, instinct wu bàyyi ma la comprendre nga donc bul condamné nit ki à partir si benn kii bu mu def bu mu ko defee di condamné nañ ko de façon totale bu mu amee bi maatam condamné ñu Farba wala Masamba wala Mademba dañoo ne. képp koo xam ne que yaa ngi jëf euh, yaa ngi jëfandikoo violence mais dañ la war a condamné. jaaduwul mais nag bu leen jógee. da ma changé discours. non mënuma ma ne ma ne mënuma changé discours. Hmm. parce que lii may wax moo méngoo ak réalité. Ah. gisuma si biir APR. benn responsable bu taxaw rek te condamné woon ñaawlu woo lu xew li Matam ak lu xew li feneen. mais condam mais condamnation yooyu c'est un vœu pieux. non c'est pas un vœu pieux non non non lu tax gëm nañ ko buñ ko gëmutoon. buñ ko gëmutoon danañ woote directoire toog ñeenti waxtu di wax ci violence di wax ni du lii lañ digge woon ak askan bi ba président Macky Sall génne discours bu mu créer parti bi en 2008 daf ko génnewaat. wanaat nit ñu yoon bi ne fii lañ war a jaar pour ñu bañ ñoo jéppi président waaw non mënuñ ñoo jéppi c'est pas possible non mënuñ ñoo jéppi je crois que président Macky Sall ak guvernement am jàmm la ji si réew mi kenn mos a dégg Macky Sall président Macky Sall di wax lu njagas di saaga wala di xaste mais ñi ma dóoraguñ fi aussi kenn gisagu leen kuñ ne responsable APR moo dem bett kii duma ko dóor ko wala gaañ ko loolu gisagu leen ko gisagu leen si nguuru Macky Sall ku taxaw rek. yore yet wala yore fetal. doo fa fa lañ jëm. non ñun ñaanu ñu. liy xeeñ waaw luy ñëw ëllëg. ma ne luy ñëw ëllëg yàllaa ko xam mais de toute façon même sa biir kër kër goo yore nga yore sa jabar ak doom du ñàkk koo xam ne si dana si jàtt donc ñun loolu géré wuñ ko luñ géré daal mooy mbir mi am na naqarlu nañ ko condamné nañ ko buñ ko war a condamné mais léegi nag suñ gannaaw la ne lu ñuy seet mooy lu nekk suñ kanam créé nañ commission de discipline convoqué nañ leen. pour que loolu bañ a amati parce que mbiru doole nit ku ñàkk fayda ñàkk fulla mooy utiliser dooleem doole ci xel la doole ci xalaat la doole du si pistolet du ci ay muscle du quoi que ce loolu nguur gu fi nekkoon yi ñoo xamoon loolu ñun xamuñu ko maintenant si suñu biir la am nañ ay jafe-jafe du ñuy ñaan yàlla jafe-jafe yooyu ñu weesu ko ñu fàtte ko comprendre mais bu ñu sukkandiku si loolu euh, bëgg a euh, condamner sans appel APR condamné sans appel Farba parce que Farba aussi yàgg na def lu baax yàgg na jàppale réew mi kon tey bu dara amee bu ñu ko naqarloo condamné si dañ ci war a yem foofu nag bañ tout temps di ko fàttali. waaw mais man lu ma jaaxal mooy mooy mooy euh, euh, juste la dëgg-dëgg monsieur le ministre yow dangaa changé discours euh, diggante semaine bi ak semaine bële ak bi lu ci <laughs> lu ci bees ba soppeeku ci man jaaxal na ma ndax yow. bay fi ne. càpp dégg nga. yow. Eh, la ci wax ma nga fay tege dégg nga dangaa ñëw gaarawaale sa sa gaarawaale yooyu nga xam ne yow yaa am sa kër bi gaarawaale gaarawaale yu foo si yaa déglu ma maa déglu bu baax yaa ngi sa gaarawaale yu foor Farba Ngom yaa ngi dégg ba tax le lendemain euh, Farba Ngom ay xale dégg ñu ñëw taxaw jàkkaarloo euh, askan bi lu lañ yàq la ko tegal la ko ba yow nga taxaw ne nangay porte plainte mais kon tey boobu jii boo bëggee soo bëggee taxaw Sénégalais yi une semaine tout juste 10 jours doxagu fi 15 jours wax wala ak doxagu fi nga bëgg a taxaw génn réet yi di réeti Farba Ngom yow xanaa si diggante bi Farba moom ñëpp xam nañ milliardaire ma rek ñëpp xam bi dafa dafa xam ne yow nii naa ko woo am fu ma jaar ak moom moo tax mais mais ma ne Youssou Touré dafa am histoire ah. Youssou Touré xaalis ko faalewul borom xaalis faalewul ku takk ndomb Youssou Touré dafa am maqaama man dama toppatoo ko am alal wala ko man maa ngi woon fii Sénégal def naa fanweeri at ak juróom-ñaar si njàngale mi si enseignement bi te pourtant niruwuma ko de dama faalewut alalu kenn Youssoupha du koy yalwaan ku ko wax rek wax nga lu la neex du ma koy yalwaan du koy daw si kaw nit man ñaar dërëmu Farba Ngom mosuma koo lekk mosuma lekk ñaar dërëmam gisuma yëguma tinuma te mu ngi may dégg mais Farba Ngom camarade de parti la mais mën nga mën nga juum def dara mais am na lu mu defal parti bi am na xeex bu métti bu mu xeexal parti nga bëgg ma niee ko man bu ma buñ ma laajee bu ma rajo bi laajee néew ma Farba néew ma Masamba néew ma Mademba dama nee daal képp koy jëfandikoo sa doole doo nit pour régler benn problème pour xeex violence moom baaxut violence mooy taal réew nañu moytu lu dal yeneen réew yi en Afrique instabilité bu fa am di ñëw Sénégal man loolu laa wax te cité wu ma kenn mais aussi nag nit ki mën na juum wala mu def dara mu naqadi mu changé. waaw léegi léegi yow sa plainte boobu fu mu toll. plainte ba. ah yow annoncé woo fi plainte. waaw non kooku du faat ba dafa am ku ñuy wax euh, benn as ngóor su kenn xamul kenn xamul hmm. bu ko neexoon mu jaar fi diggu guddi dem caaro yi dem yëbal kenn du xam mooy kan moo bëgg xëy na lu neex ay patron. patron kan la xaw ma je ne sais pas je ne sais pas. je ne sais pas il y avait un commanditaire ñëw rek ah dal si kaw Youssou Touré te dégluwul lu Youssou Touré wax man si benn rajo laa waxuma feneen nag si benn rajo laa te dañ ma laaj dañ ma woo comme nu ñu wooyee ñeneen man danañ ma woo may def l'apologie di di tagg violence naan violence lu baax la dañ ma woo may tagg violence moom moo jóg naan dama doon sama combat yëpp combat kay la dama doon reer ak euh, Karim Wade man bu ma reer ak Karim Wade fukki yoon wala ñaar fukki yoon maa encore que mosuma reer ak Karim Wade dama xam fu Karim Wade dëkk man benn yoon laa dem bureau benn yoon ñu waxtaan Karim Wade nit la bu ma nee woon bu Karim Wade nee woon day ñëw sama kër reer ma ne ko ñëwal ñun ay sénégalais lañ ay jullit lañu comprendre man aw ma benn kersa wala benn gàcce reer ak ma Samba ak ma Demba ak Karim Wade ak keneen Karim Wade nit la doomu aadama la comprendre mënoon naa dem reeree këram parce que amoon na yeneen waa PDS dama doon dem seen i kër mais ñun dëkk bi du ñaay noonu. même ku nekk opposition du suñu noonu dañoo war di demalante di waxtaan parce que dëkk bi ñoo ko bokk tey ñun ñoo fi nekk ëllëg ñeneen danañ fi danañ fi nekk xëy na kay ñoom ñu fi nekkoon 12 ans ñoom ñoo xamul ne àdduna day dox ñoom ñoo sóoraale wutoon lu mën a am tey mais ñun quand yeewu nañ xam nañ ne euh, dëkk mënoo fa am noonu ñun waa PDS ak waa bokk xaw ma gis-gis xaw ma bokk am-am. ak yooyu ñun ñëpp benn réew mi ñun ñoo ko bokk donc nañ fexe ñun ñëpp rek bàyyi mbel-mbel ju bëri ji ak coow lu bëri yi bàyyi yee fitna. Mm. ñu fexe ba réew mi jàmm ju ñu yàlla sédd depuis 1960 jàmm jooju di wéy. waaye plainte bi tontu ko bàyyi nga ko. non bi waaw bàyyi naa ko. lu lu tax ma bàyyi ko parce que aussi camarade de parti la. Mm. ñoo bokk benn parti kenn laaju ma ma bàyyi ñoo bokk benn parti ñoo doo ñoo nekkoon démb ak barki démb. Euh, mu ngi koy doog a def mais naa bàyyi noonu. kon yow en euh, réalité plainte bi gëmoo ko woon da nga doon nappaate ni du yuuxu nii rek mais gëmoo woon plainte <laughs> loolu boo ko waxee sénégalais yu lay déglu sénégalais yu lay déglu ñu la gëm man du koy naxaate ak kuy yuuxu rek am na ñoo xam ne ñu dafa leen a fan yii dem naa ba tribunal taxaw fa si procès bi te dana wér te pourtant ñu bëri ñaan nañ ma ne waa deltu gannaaw deltu ba gannaaw nga tribunal ku doon mbel mbel di rëy laa biñ. di ma traité de faussaire. mais xaw ma xaw ma euh, ngóor soosu rek di niroog lu kenn xamul. comprendre nga di niroog lu kenn xamul koo xam ne kii nee na jàngalekat la te ab sàmm la gën a niru bon. Euh, ah, di di di jéem a taxaw pour yàq pour yàq sama der naan man faussaire laa. Ah. naan naan naan faussaire laa maanaam damay man dama dugg dafa am fu ma jaar dama am sama batte kenn dimbaliwu te bu ma koy am li si de Gaulle laa ko ñu ngi fii ñu ngi fii si dëkk bi muy ñoom Ousmane Kom muy ñoom Baara Sadi ñoom ñëpp samay promotionnaire. parce que ñu bëri nañu sore amuñu sa sa sa sa ay euh, euh, nga am. waaw waaw d' accord mais mais benn maa leen ëpp jàng yéen ñu am bac plus 5 man bu ma yàgg bi bac c' était en 76 et voilà mais français maa fa ëppoon note aux épreuves anticipées de français comprendre nga donc man dama am niveau. da ngay wut sa émission ñu def ko en français ñu def ko tubaab dégg nga bon donc du ma xas ñu am ñi ay diplôme tey ji mais xam-xam sax du si diplôme du si lijaasa xam-xam du si lijaasa xam gëstu la rek ngay gëstu di xalaat donc euh, euh, am na plainte boo xam ne bi par exemple bu ma demee ba ne dama koy def ma seetaat ni quoi qu'on ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk parti mais quand comme mu ngi doogaal c'est normal maa retiré ko léegi yow euh, Farba Ngom est-ce que ci bagage yi gisante ngeen si yéen ñaar ba toog waxtaan. bagage yi. si si euh, euh, ba nga ko gaaruwaalee noonu bien que weddi nga ko mais ba nga ko gaaruwaalee noonu ba mu gisaale ci boppam est-ce ba nga demee ci directoire ba yéen ñaar gisante ngeen. waxante ngeen man gaaruwaale ma ko def est-ce que waaw d'accord waaye mais gisante mais gisante nañu mais buñ gisante la du ñuy nuyoo kafre un point c'est tout duñu ci en ci directoire boobu. ba euh, ngeen gisante ak ah, xam naa tamit euh, seen président Macky Sall la mu fa dama leen mena menaces yu tàng yi mu leen menacé. non moo tax. kan la ñuy menacé ah, xanaa kuy def violence man de menacé. waaw waaw non mais violence. Euh, juste elle est pas seulement physique. elle est gis ma utiliser violence. non dama ne est que tamit ne li tax tey jii nga ñëw tey jàkkaarloog Sénégalais yi di di jël ndox mu sedd di ko sotti fa moom xëy na dangay ragal seen kii président Macky Sall. menaces yu rëy yi ma leen menacé moo tax tey jii yu parce que na Touré yow yow dafa sa Youssou Touré yow yow léegi da nga changé Youssou Touré yow léegi Youssou Touré moo tax amatoo xorom léegi Youssou Touré bàyyi nga sànni xeer Youssou Touré euh, euh, ngay woote dégg nga alors que yow pyromane nga woon dégg nga xëy sa ba rek euh, soppaliku waaw. waaw xam nga xam nga xam nga ay sëtu nit mënut a soppaliku jom ju ma amoon fulla ju ma amoon fit bi ak fayda bi mu ngi fi intact. dara jógewu si mais nag boo xeexee ba yàlla jox la nguur en tout cas ñun ku ñu àndal ñu xeex ba yàlla jox ko Sénégal waruñ ko wutal ay noonu ak ay mbañ ñun jàmm nañ war a woote parce que ku perte nguur mu en boo pertee nguur sax danga war a ñaan jàmm pour que nga jëlaat ko mm. mais ñun jël nañ nguur gi duñ def ni ñoom ñu fi nekkoon yi doole lañ doon jaay mais buñ la jaayee doole nga fippu man mi fi nekkoon ñu dañ ma doon jaay doole te ay cuune la xamuñu dara dañoo tële xamuñu dara ñoo yàq réew mi mais donc boobu bu may jaay bi doole il fallait que ma tontu lu ma amoon pour tontu leen dama mën a jël fetal tiré seen bopp donc samay position laa amoon mais tey jii ñun ñoo jël nguur gi ñun duñ def ni ñoom parce que ñun amuñu noonu PDS bi suñu noonu opposition bi suñu noon bien que opposition tey jii xamuñu ñoom lan mooy seen rôle parce que réew wax jàmm ak def jàmm moo baax si réew moo baax si ñun ñëpp pouvoir comme opposition parce que pouvoir doo fi toog ba ilaa abadan ñoom foogoon nañ ne duñ fi jóge donc du problème mu euh, dama daan sànni xeer léegi sànnetuma xeer kan laay sànni xeer bu may sànni xeer ñun bu ñu sañoon ñun ñëpp du ñuy ànd président Macky Sall mu ngi doo ko def deux ans deux ans yi manqué na tuuti donc jotagut waxante yenn yi ak xeex jotagut nañ xaar ba 2017 bu ñu demee campagne. ku nekk génne say argument mais réew mi tey jii dañ ko bëgg a defaraat te defaraat réew mi du si pouvoir bi rek opposition si la opposition dañoo dañ see war a am na ñu defar réew mi du tere nag ñu opposé wu parce que pouvoir day bëgg opposition bu am doole donc pouvoir sax dafa war a dooleel opposition parce que booy def te kenn du la ne déet kenn du la ne jaaral fii jaaral fii extra extra là aussi du baax mm-hmm. donc c'est pas parce que changé na euh, dama changé changé wu ma contexte bi moo changé te du ma toog aussi di def loo xam ne li wala di wax loo xam ne li day ñaaw si deru président Macky Sall mu ma tàng loolu aussi du ma ko def comprendre ensuite Sénégal yi samay naw la leen xam nañ ma bërki démb ak démb donc si loolu ñun jàmm la ñuy woote ñuy fexe ba ñun ñëpp réew mi ñu nekk si jàmm mën nañ waxante nag critiquante mais maître chanteur yeeg njublag yeeg borom deq yeeg ñoo xam ne ni seen deq rek moo leen fii deq moom la Saalum Saalum di wax man nag Saalum Saalum la seen deq rek lañ yore lu ñu wan rek du réew mooy leen euh, intéressé du leneen wan rek luñ kii rek giiroo lekk wan ay mercenaires lañu réew mi dafa bari ay mercenaires ñoo xam ne ñu gëmuñu dara luñ gëm mooy seen bopp lu ñu lekk lu ñu wan man nag gaw ma lekk gëw ma lekk parce que dama juddu di lekk-lekk bu neex parce que man sama papa chemin de fer la nekkoon gaañu new ñëpp may dégg ba pare caat laa woon doon seul gar une aussi moo jógee fa même bu sama papa ñàkkoon aussi moo jógee fa nekk internat lycée Charles de Gaulle. di lekk ay fruits dessert. waaw foofu laa xamee hors d'œuvre <laughs> foofu laa xamee plat de résistance foofu laa xamee dessert sept mais nag <laughs> ñoo bon mais mais mais loolu boo jaaree foofu doo doon nit ku xiif doo doon nit koo xam ne kii. dangay bëgg loo def sa biir. mais mais mais Youssou Touré yow euh, euh, euh, de maître chanteur bëri nañu. ñu bëri nañu ah Youssou Touré ah si si ah, ah, <laughs> ancien ancien régime bi ancien régime bi yaa ngi lay ne Youssou Touré <laughs> c'est le plus grand maître chanteur. du Sénégal ah lu tax lu tax ñu koy wax day ñëw créé oye sa mu taw boobu taxaw. Euh, euh, euh, mobiliser kii bloquer système scolaire en tout cas jàng yu yu yu yu ni nga ni nga ko waxee yu dëkk doomu yi. waaw dégg nga day yuuxu nii nangam tonton bi Kaari Diallo ah, ak ñeneen yi ñoom Karim Wade yooyu woo ah, xaw am suñ la bëree yooyu da nga arrêté donc moo tax ñu bëri nee nañu tamit juste rek tu n'es pas tu n'es pas clean monsieur ministre. ah waaw wax nañ dëgg de. buñ nee je ne suis pas clean wax nañ dëkk xëy na sax maa gën a bon si Sénégal yi mais aussi nit da ngay jàpp si moom loo xam ne li xëy na rafet na wala baax na parce que nit nit rek la peut-être que je ne suis clean mais xam nga loolu nga wax affaire yees nga wax OIS du syndicat OIS benn nit la Youssou Touré. Mm-hmm. non je confirme. yi fi nekk yëpp xaalis bu bari la ñu am militant yu bëri man aw ma ko mais xëy na sama gémmiñ ñu embarqué. sama gémmiñ ma am barke tey jii bëpp jàngalekat si daara yu ndaw yi ñu naan ko instituteur boo amee prime scolaire ak instituteur adjoint yi am formation diplômante gannaaw yàlla ak yonent bi seen ndey ak seen baay man lañu war a gërëm man maa xeex xeex boobu te ñu fi nekkoon xam nañ ko bon pour problème Kalidou Kalidou dañoo nekkoon ay xarit dañu nekkoon ay xarit du woon euh, affaire ministre ak syndicat dama daan dem këram ñëw na suma kër mais loolu terewul ma ànd ak samay principe man lu ma gëm gëm naa ko donc man tey jii bu ma euh, benn kilifa PDS invité woon këram ne ma ñoo ñëwal ñu ànd ma dem mais du ñaay noon il faut que ñu xam ne opposition ak pouvoir benn lañu ñun ñëpp ay sénégalais lañ ay xarit mën nga nekk si parti am xarit beneen parti mais loolu wéy la problème donc ay maître chanteur nañ wax lu leen neex bu ma doon maître chanteur yàgg naa dem audience présidence. bu ba Wade fi nekk du wax sax yenn parce que doo dem fenn ba pare génn di ko wax mm-hmm. mais bu ma doonoon maître chanteur yaakaar naa ne kon tey bëri woon naa alal. d' accord alors euh, monsieur le ministre euh, ñu dellusiwaat euh, ci seen parti pour tëj nag yëfu Matam yooyu dégg nga loo xam ni nii man pour man si inédit au Sénégal ah procureur bu Matam bi Diakhoumpa. Euh, euh, réew mi yëpp euh, yëg nañu lam fa wax nee na daal hiérarchie am maanaam ministre de la justice di Sidiki Kaba yónnee nañu ko dafa ñu ko daal ay pression yónnee ko ay lettre ñu ni mel pour rek dama ñu ko xam naa Farba Ngom moo war a maa booleeg sëriñam ci mi ko ayam dëgër na bu weesoo poche bu diis ba donc pour rek daal Farba Ngom ak ñoom seen ñu bañ leen a entendre est-ce loolu pression boobu fu ñu moment bi ñuy waxee séparation des pouvoirs moment bu ñoo Euh, ñoom Mbow euh, euh, Abdou ah, Amadou Matar Mbow dëxëñee lu bëri ci scénario yi ah est-ce que rafet na tey ci ngu ci ci deru Macky Sall benn magistrat au magistrat sax taxaw di wax ne dañ koy pressionné ba teg teg ko pression noonu pour rek mu bañ a woo ñoo xamante ne dañoo jàll ci yoon est loolu rafet na ci yéen. xam nga loolu jaarul sax yoon. dafa am yoo xam ne yi. c'est un non sens. man gisuma ay président Macky wala ay premier ministre di jéem a dugg ci affaire justice. loolu franchement def di ay wax yoo xam ne yi ñun mënuñu koo jàpp. ñun non waxu man dégluwuma ko bay xam ndax invade man dama ñemewul sax procureur faf man ñemewuma procureur ñemewuma tribunal bi que yàgg naa faa dem yàgg nañu faa yóbbu mais dama leen ñemewu ñun daal lu ñuy ñaan mooy muy procureur muy juge ku ci nekk boo amee sa liggéey nga def ko correctement. du président Macky Sall ak gouvernement am ñoo lay tere def sa liggéey loolu daal moom xam naa ko. Mm. parce que nekk naa seen biir bu amoon aussi boo ko mënta wax publiquement danaa noppi danaa ko naqarlu noppi mais loolu amul président Macky du genre boo xam ne bi euh, day dugg si liggéey justice. man mii sosal nañ ma fi ab xaalisu coopérative euh, te pourtant boobu ñun ñoo nekk si nguur gi bien ko nommé guñ ma woon yóbbu ma brigade de recherche bu Dakar si ay sos. ay fen ay kàcc ay kàcc ay baadoolo yu amul dara amuñu takkuñu boo leen seenee yërëm leen bëgg leen a bëgg leen a bëgg leen a sarax ñu ma fay yóbbu naan ma xaw ma coopérative un million xaw ma deux millions ay baadoolo yoo xam ne kenn xamul lu ñu niru mais terewut naqar lu ma ko parce que ñun bu ñu amee suñu problème duñ dem di ko wax président Macky Sall pour mu jàppale ñu si bu ñu ko def mais bu ko yëgee mën na leen jàppale. non même bu ko yëgee non même bu ko yëgee buñ may yóbbu brigade de recherche yëg na ko bu ñu fa yóbbu yëg na ko mais pourtant waxu si dara ba Mimi Touré mu nekkoon ministre de la justice waxu si dara parce que dañ see warta wax dara xam nga président Macky Sall ak gouvernement am lu leen fi indi liggéey ba 2017 ñëpp xam ne liggéey nañ ñu gagné élection yi dem 2022 bis bu ñu fi jógee àdduna bi yëpp ak Sénégal yi yëpp. témoigner ne ñii kat nekk nañ fi def nañ liggéey bu rafet mais affaire justice moom affaire justice affaire tribunal gouvernement bi du si dugg président du si dugg te yàgg na koo wax si commencement bi la ne affaire justice bu ko si kenn wax daal donc loolu kay seet rek. waaw mais nag Youssou loo doon doxaat ci ci benn actualité dëgg yàlla Youssou la ngay yóbbu justice bëri na yóbbu justice. damaa bëri bor damaa bëri bor nag moom wax nga dëgg waaw man gaa yàgg na te sama yóbbu tribunal du fii rek ak inspecteur moo sax na ma fa yóbbu tribunal moom gaa miin naa tribunal mais xam nga lu ma si neex mooy ndam bu ma fay jële man fu ma demee tribunal rek am fa ndam fu ma demee dañ may taxal nag dañ xam nga tey jii képp ku nekk par exemple instituteur képp ku nekk instituteur jàngalekat si daara yu ndaw yi képp ku nekk instituteur rek bu la illustré dooroon balu fatal sax war nga ko mën a baal ndax xeex bu ma xeex comprendre donc yàlla def na mais comme yàlla moo yore yëpp yàlla moo nekk si kaw moo yore yëpp yàlla may na ma ba borom làmmiñ yu ñaaw yi borom xol yu ñuul yi yàlla may na ma ba tey jii maa ngi rëcc si seen gémmiñ yi ak seen yéene ju ñaaw xol yu ñuul yu ñu am si man parce que man je ne suis qu'un mortel yàlla may na ma fu ma demee tribunal am ndam parce que jubuma kocc xëy na sax maa gën a dëng Sénégal yi yépp maa leen gën a dëng mais na xanaa am na fu ma jubee am na fu ma baaxee donc si loolu euh, vraiment. man man man xam nga lu ma xaw a jaaxal mooy juste bu ñu porté plainte nga yóbbu tribunal <laughs> ay bor la wala. <laughs> am na say temps boo amul dépense nooy def nga dem lebi. <laughs> am na ay temps. yaa nga maa jooytu dépense ma lay jàppale. ah jërëjëf. waaw waaw ñu yóbbu la pour pour ay opération tabaski ay. gis nga tabaski boobu laaluma xar dama boole euh, dama boole ndaw si rek ku ko xam. alors léegi ñu ne xëy na comme man lañ xam man naa siiw nañ ma yóbbu tribunal mais tribunal àtte na tribunal nee na du ma si dara du ma si dara man daal. waaw ah, bële loo fi mujjee yëpp rek ban noonu. brigade de recherche bi bañ a bu loxo yu set rek. loxo yu set rek danañ ma jéem a taqal sama der tuumaal ma xam nga ay syndicat sax mën nañu am problème te duñ waxante lu ñaaw biir syndicat boo jëlee par exemple euh, dama koy jox exemple rek waa CUSEMS yi bu ñu fi amee problème taqali ko. ñoom ñaar ñëpp kenn déggul ñu wax wax ju ñaaw kenn déggu leen donc ay nit mën nañ séparé wu mën nañ taqali ko ku nekk foog ne yaa am dëgg mm-hmm. te fekk xasteeg saaga ak bëgg a def sa morom lu bon du si am mm-hmm. mais xam nga njàng moo amatul léegi loolu mooy problème bi njàng amatul njàng lay amatul lu ñu yore fii doo école kon ay lan la kon non kenn xamul lan la école moom amatuñ ko donc tey jii tey jii tey jii gis nga lu ñu doon wax collègue enseignant ah, amatul bëreetut je veux dire bëreetut. pourquoi gis nga collègue dafa fort nit ki bu ngeen bokkee métier rek war na tax nga may ko ci respecté ko yow en tant que journaliste sa moromu journaliste normalement war la wax dara lu ñaaw mais dëkk bi tey jii lu fi am mooy xasaate boo teg nit ki tuuma. loolu moo am si réew mi. waaw waaw monsieur le ministre pourquoi enseignant amatul. Ah, parce que niveau bi baaxatul c' est enseignant yu bëri. tàggat bi mooy formation amatul. Mm-hmm. amatuñ enseignement. man maa ngi fàttaliku ñun dama ne man ñun bu ñuy nekk bi lu ñuy wax école primaire léegi élémentaire bu ñuy nekk bi CE1 moom la ñuy wax tey jii quatrième donc trois ans la ko suñu koñ ñun ñoo fa doon bind lettre yi tey jéem ko def donc euh, euh, wax dëgg yàlla enseignement bi moom dañ war a dem en profondeur doy na waar alors léegi monsieur le ministre ñu ñëw ci euh, l'aspect purement politique benn actualité bi mooy Moustapha daanaka daal Euh, jël na partem boobu euh, di alliance pour la euh, AFP dëgg-dëgg jëbal ko président Macky Sall ak bopp beeg yëpp daal ne ko daal suñu bopp baa ngi nii jëlal jëlal bu nga nga takk ko ci di ñu xëcc loolu daal la def loolu nag réew mi yëpp jàpp nañ ne li ko wunn mooy fauteuil bu nooy ba mu toog di président de l'Assemblée nationale Euh, bëgg na daal euh, Macky Sall euh, fii ba 2017 mu bàyyi ko fa bu ko Sénégal yi wóoluwaatee dama joxaat beneen mandat tamit moom moom Macky moom président Niass bu toog fa kon ci yooyu yëpp nag dañ jàpp ne président bu mag bi mooy Malick Gakou la. ma Youssou Touré jëf ji Moustapha Niass jëf nii yow yow j'imagine kontaan nga ci yow. waaw ma ne xam nga du problème kontaan ak ñàkk kontaan xam nga léegi lu ñu di bëgg. féewaloo ay jafe-jafe coono parce que dañu koo jàngal dafa am si réew mi fukki at ak ñaar 12 ans xëccoo xasante saaga réew mi avancé wu. depuis lors taux de croissance bi bu eggee fii c'est parce que liggéeyuñu lu dul xasante ak waxante lu ñaaw président Moustapha Niass euh, je crois que du parce que mu ngi def lu baax di wax lu baax si affaire déedéet du loolu mais Moustapha Niass du xaalis mooy tax. mu soppeeku kenn mënu koo jënd parce que kenn ëpp ko fi xaalis fu mu war a jaar yëpp jaar na fa lu mu am ñu bëri amuñu ko donc lu muy wax daf ko wax tibbee si xolam te wax na dëgg. Hmm, lu mu wax mooy moom du nekk candidat. parce que dafa nekk si coalition. mais nan ngay nekkee si coalition toog ba mu neex la 2017 nga génn ne da ngay sàmm sa dëkk. mais parti politique non non ma ne. parti politique la yore ma ne parti politique boobu mu yore hmm. AFP. ñu ngi si nguur gi ñu ngi liggéey pour Sénégal waa AFP ñu ngi si nguur gi te Moustapha Niasse ku honnête la c'est un intellectuel honnête te du tey laa ko wax du tey laa ko wax intellectuel bu honnête la kenn ëpp ko xam-xam si réew mi te dafa jógoon def candidature boppam mu gis ne président Macky gagné na ko président Macky dem gis ko pour ñu liggéeyal réew mi mais président Moustapha Niasse lu mu wax li dafa am fu mu ko wéer xam nga ay sëto réew mi dafa jaxasoo mm. réew mi dafa mel ni nit ñi ay rek xam nga ñu ñàkk nguur gi tey lan lañ bëgg ay rek lañ bëgg pour ñu taal dëkk bi rek ñu mën a ñu mën a wan digérer lu ñu lekk li loolooy problème bi mais bu jógee taxaw euh, xam nga dafa am ay détails yoo xam ne yi bëgguñu see dugg parce que ñun réew mi xam nañ kat mooy kan ñun AFP ñu fay jouer certains rôles xam nañ leen. comme xaw ma je ne sais pas. ma ne ñuy jouer benn rôle bi. Mm. nekkoon nag nguur gu fi nekkoon di di jëflanteeg moom di demlanteeg ñoom. ñun xam nañ leen non non non. non non mais mais xanaa yow ma ne tudduma tur yow yaay tudd tur man tudduma tur. dama ne dama ne. Aïssatou Diop Fall réew mii nga nekk ñëpp xam nañ la. Mm. looy def xam nañ ko boo baaxee xam nañ ko boo baax na xam man mii la même chose. Mm. comprendre nga ñun këpp ko fii taxaw di wax Sénégal nga nekk te mënoo def lu réer Sénégal yi mënoo def loo xam ne rek nit ñi duñ ko xam comprendre nga kum kum neex rek mais demal samp sa ndënd mais xam nañ ñoo nekk ñun am na ñu fi nekk nekk suñ parti wala nekk si ko coalition Benno Yak Benno Bokk Yaakaar xam nañ lu ñuy def si suuf lu ñuy wax si kaw ak lu ñuy wax si suuf fu ñuy dem si kaw ak fu ñuy dem guddi ak yeneen ñun xam nañ ko mais jotagul pour ñu wax ko bis bu jotee bis bu campagne jotee wala wax ko jot parce que ñun ragaluñu wax. ñun yàlla rek lañ ragal te bu ñu waxee yàlla rek lañ ragal war nañ ko xam ragaluñu la bis bu wax jotee nañ ko wax ku nekk foo doon dem foo doon dugg magu yooyu def looy jot et cetera ñoo àndal ñëpp ñun xam nañ ko donc si loolu ñun du ñuy gërëm alliance des forces du progrès du ñuy gërëm président Moustapha Niass kenn ëpp ko xam-xam si dëkk bi mais dafa jot te loolu bu wax mais lu rafet la nee na même bu demee ba yore bant dana yore parteem parti bi daf ko yore di si def alalam du parti bi moo ko jox alal. waaw léegi léegi léegi euh, xamoon na question dama la ko posé nii rek par pure forme ndax xamoon naa ni euh, tàccu nga fa nar a def. non non non non non tàccu nii parce que yéen ça vous arrange ba ndax yéen yéen Moussa Niass yéen tëjtu leen ko président Moussa Niass tëjtu leen ko. kii mais def naa fi point de presse boobu yàgg. mais Malick ma ne Moussa Niass ko am mérite la. yéen Malick Gakou ngeen tiit yéen. non ma ne xam nga yaa tudd. parce que Malick Gakou kaa wax non non kaa wax illustré yéen fu kaa ngeen tiit Malick Gakou mooy gis ngeen ne Malick Gakou wax dëgg yàlla banlieue bële xale yi moom lañu bëgg waaw euh, showbiz bii mi ngi koy toj kon fi mu ne euh, euh, lu nga bëgg ci banlieue bi dégg mm-hmm. bu ci bu di ngeen am problème ak Malick Gakou rawatina nag mu nekk xale jantal dégg nga xaw a mees tuuti ah <laughs> dégg na kenn mais xaw a mees tuuti moom Malick Gakou dafa mees quand jeune la am na forme il est en forme dégg ne. Euh, euh, euh, kii Malick Gakou mi nañ ko téye est-ce que yéen a ngeen téye Malick Gakou c'est ça le problème. maanaam. Hmm. yow yaay tudd turam man du ma tudd turam. man daal lu ma xam waaw may ma rek. gis nga ñun bu ñuy def suñuy action yu baax. Hmm. xam nga ñun bu ñuy def suñu action yu baax da ngay jël sa caméra ak sa micro nga dem Pikine nga laajte ñun bu ñuy def action yu baax xam nga fu ñu koy defee. Hmm. si l'école yi ndongo daara yi comme si ndongo daara yi si école si école yi si lycée yi. si yalwaankat yi si ñu sonn ñun pauvreté la ñuy combattre ñun nekkuñu fi pour le folklore comprendre nga ñun nekkuñu fi pour siiw wala pour ñu gis ñu pour ñu dégg man bu may maye suma as tuut su may maye xam naa ñu ma koy may ñu ñàkk ñi laa koy jox comprendre nga ñun si loolu la ñu nekk ñun nekkuñu fii pour di def politique spectacle ñun du ñuy def action concrète sur le terrain di jàppale nit ñi. di dem si nit te kenn du ko yëg nag parce que duñ ko publicité ñun duñ dem di def dara di ko publicité pour nit ñi yëg na diw si ñun wala Massamba mu ngi def dara donc ñun nekkuñu fi pour loolu askan bi ñooy atte ñooy apprécier ñooy juger. man daal bu ma amee sama alal xam naa fa ma koy dugal. waaw euh, yéen sax da ngeen yéen sax ngeen am doy am ngeen bu ne weñ bu fi tey. seen mimitur yi euh, ngeen xam ne. wax dëgg yàlla euh, euh, bëreet bëreetam ñëpp gis nañ ko fi am fi bëreet bu rëy mi am mi mi indi mi mi am mi mi indi mi dégg ñu ñu jékki-jékki euh, depuis deux ou trois mois ñu pindi ay cëram ba bëgg dem daa ci la sulleeku tuuti fàttalikuwaat Sénégalais yi di nice nice la ak yooyu tapis rouge président Macky Sall kon yéen wax dëgg yàlla am ngeen bu leen doy am ngeen bu ne weñ waaw mais xam nga xam nga ay sëtu réew mi temps de parole moo fi ëpp temps d'action mm. wax ji moo bëri ba ëpp euh, xam nga toog nañ fi naan madame Sall mu ngi def tournée politique mu ngi dem fii mu ngi dem mu ngi dem grand waaw fii mu toog xamuñu ko ci ma première dame fi nekkoon ah ma euh, may ma may ma ma ñëw waaw may ma ma xam nga madame Sall citoyenne la avant muy doon première dame. xam nga dafa nekkoon opposition. je crois que mos naa la ko fi wax. 23 juin suñu rassemblement yi ñu doon def mooy sol ay dàllu caraxam comprendre nga mooy sol ay dàllu caraxam whatsapp wala sax Lagos ñëw nekk si biir nit ñi di séddale ay sandwich. di joxe ay ndox may ma rek may ma rek. may ma rek ba tey jii c'est son rôle. non mais léegi dafa ko woo non non. non ma euh, je suis au regret je suis désolé wax dëgg yàlla. waxuma ko pour tagg ko parce que man du ma koy tagg nit parce que déjà c'est mon sang man du ma tagg nit man duma ma koy tagg nit bu defoon lu mu war def moo ko mënut a dénoncer ma noppi mais dama ko mës a gis mu summeeku ànd ak ñun si terrain bi parce que fu ñu taxawoon madame Sall mu nga fa. donc tey jii buñ ko wooyee si loo xam ne li day jàppale parti bi mais c'est normal mu dem fa premier ministre buñ ko wooyee fu mu war a jàppale parti bi aussi c'est normal mu dem fa. mais war naa Sall. Euh, war naa kan war naa xool foto. Euh, piis foto yi. kan moo la wax mu ngi koy piis. ah ah, ah, ah. waaye su yow. waaw ah, déet dama lay laaj kan moo ne mu ngi piis. foto euh, xam nga nous sommes dans un régime présidentiel. Mm. président moo yore pouvoir yépp mm. suñ constitution foofu la toll. bu demee ba nga xam ne président de la république gis na ne kii kat. feneen laa ko war a yóbbu wala keneen laa ko war a teg mais dañu ko def te du tàggoo. non mais mais man xam nga laa bëgg laa yóbbu kon mooy euh, euh, Mimi Touré euh, yëngal li dafa xaw a ëppal premier ministre ko kan moo ëppal yow ëppaloo. waaw dama ëppal amaat <laughs> mais moom moo ñu raw ndax yow dañu daan nommé premier ministre ngay yóotu parti ba bëgg a nekk numéro 2 du parti dégg nga. bëgg daal sa sa sa tentacule yi nga état bu fu ne ba ku ne jóg na si seen parti euh, ma fàttali rek euh, euh, monsieur ministre d'État Mbaye Ndiaye bokk na si ñi nga xam ne publiquement yëkkati nañ seen parole dénoncé lu mel noonu yi nga tamit du na bi ñu fi wax donc yow ma ne ma bëgg nga wax ma ko mooy aujourd'hui Mimi Touré gis nga gis communication bu ñu fi def semaine bi bii ñu weesu man li ma bëgg a xam mooy nga wax ñu yow Youssou Touré Euh, aujourd'hui euh, ndax yaa ngi rafetlu taxawaayu Mimi en tant que premier ministre ak i tamit Mimi Touré en tant que euh, camarade bi ngeen doon. waa xam nga Aïssatou premier ministre président de la République ba mu koy nommé tàgguwuñu. waaw woote wut secrétariat ne dama ma bëgg a diw wala diw lu ngeen si xalaat. Mm. donc moom moo nommé premier ministre ñun lu ñu mën a gis mooy lu premier ministre def lu président def ak lu keneen di def ñu mën ko apprécier wala ñu ñàkk ko apprécier ñun amuñu benn intérêt problème am jafe-jafe am si diggante président ak premier ministre ñun ñaanuñu ko dañoo bëgg ñu déggoo mais président si boppam bu gisee lii ngay wax xëy na moom dana si tirer les conséquences mais ñu gisuñu ko man jàmm rek laa gis. ah kon nag gisoo ne Mimi Touré euh, euh, dafa bëgg fa day président gisoo ne gisoo ne. Euh, dafa bëgg ne numéro di parti. mais mais bëgg fauteuil yu président ana ñu ko fi bëggoon fauteuil yu président fii fauteuil président am nañ ko fauteuil yu président sa liggéey ak ndimbalu yàlla moo la koy jox. kuy lorñe fauteuil yu président xëy na gëmoo yàlla. waaw mais mais man xam nga ma jaaxal. waaw mooy yow li wax nii c'est vraiment à contre contre courant ci. Euh, euh, sa waa parti li ñuy wax. Euh, sa waa parti li ñuy wax barki démb rek yaa ngi dégg Mariam Faye fa mu demoon Garaayef Guèye ca rakkam ja xaw ma magam Adama Faye dégg nga Adama Faye li mu fi wax nee moom moom moom moo tungab Mimi Touré Mimi bëgg a ñëw pàdd ko ci ci Garaayef bi. ak Mimi moom dégg ko ma fi kenn koo xamante ni jamono yii yaa ngi bokk APR. ku osé taxaw tàcc ko wala nga dafa ko benn motion de soutien mais yow def yow nag Youssou su on dirait que yow tu es l'homme des exceptions yow dafa mel ne Youssou dama la gisee nii euh, dangaa bëgg a jël taxawaayu avocat mi mu turee loolu laa bëgg nga leeral ko te euh, sama xarit la bu la neexee nga def ma avocat mais man euh, muy Grand Yoff muy feneen man sama gis-gis mbooy parti bi fépp fu ñu ko war a doolee rek dañ koy doole man base laa gëm man ñi ñi di dem si base bi donc bu première dame demee si baas bi mais lu war la dañ ko war a rafetlu. premier ministre aussi bu demee si ak kan noonu. Adama Faye boo wax. dama ne man Mimi Touré moo ma intéressé waxuma la ay Adama Faye. waaw waaw Mimi Touré si la man dama ne. waaw euh, Youssou Touré yow euh, euh, ci mattante yi nga xam ne nii fi ñu toll ku jóg seen parti bi yaa ngi jël xeer dëgg tëmbal Mimi ah, loolu yëgu yow dama la wutal xeer yow. ah lu tax ma ko wutal xeer man que non non c' est pas que je dis. Ah. c' est pas ce que je dis nous sommes une équipe ñun équipe lañu. Hmm. am na ñoo xam ne ni président tànn la ren ñun bu fekkee am na lu ñu si war a wax buñ gisee lu doxu walla lu ñagas xanaa nag duñu woo télé bi ku ko wax wala rajo. yow euh, danañ dem wax ko président dégg nga euh, dégg naa kii. Euh, moo ko fi nekk woon euh, euh, en son temps indi woon na fi débat kii kii ñaa Mame Mbaye Niang fii la ne nañ supprimer euh, poste premier ministre ànd nga ci wala àndoo ci yow. mais ñu ngi si démocratie gis gisam la wax. no non du ma ne. non non waaw waaw ma ne léegi yow la ma si gis-gis yow. ma ne poste premier ministre est-ce que Sénégal sama ko bañ a soxla. Hmm. waaw. kon jarul ñu koy supprimer. non loolu yëpp waxuma ko dama ne. Hmm. premier ministre. soxla nañ ko bu fekkee ni benn pouvoir ñëw na ne bëggatul premier ministre aussi xëy na dana am leneen lu mu fa teg mais man du focaliser wu ma si loolu ndax premier ministre war na am ak wala warta am dama ne daal mbir mi si suñu biir la. mais pour yow Mimi Touré elle fait bien man tooguma fii pour apprécier travail ma Samba wala ma Demba travail d'équipe lay apprécier. Mm. bu fi équipe bi nekkee ba léegi même Abdoul Mbaye bay na waaram comprendre nga. man munuma dem ba le fond des choses doo ma wax loo nag loo xam ne li man xaw ma si dara. ba ëllëg encore sans waay ah ñu indil ma fi ay problème loolu rek nga bëgg ah loolay problème man lu may ñaan yàlla. lu may ñaan yàlla te sama xol laa ko jëlee. si sama xol mooy bu fekkee lu ñuy wax li am na dañoo déggootul président Macky ak premier ministre ak équipe am yëpp ñu déggoo. parce que si déggoo lañ mën a defar réew mi réew duñ ko defar si ay xëccoo. si ay xasante si ay jëwante man loolu ñun loolu mooy suñu intérêt. Mm-hmm. mais nag wax dëgg yàlla ay sëtu dafa am loo xam ne li sama xam-xam eggu fa par exemple ay difficulté yu mën a am au sommet entre un président la République waa ak un premier ministre franchement. mënu ne ko xam non xam nga ko ñu ngi ñu ngi dem may ma ñu ngi dem secrétariat. Mm. président mu nga fa premier ministre ma nga fa. Mm. gisuma fa xëccoo. Mm. gisuma fa wax ju degas. ni quoi que ce soit. waaye Yusre yow loolu eh, yow kay man kay li ma xalaat mooy yow daal promu mi tura nga c'est nag ndax ba dëgg yàlla eh, eh, ministre boo tey nga dëkk boo tas <laughs> ñëwagut <laughs> ma ne ma ne ma mm. man pro benn nit la mooy mm. président Macky moom laay borom. je suis le président Macky bëgg sa ñoom ñëpp laa bëgg sa xol. ñoom ñëpp ma ne ñoom ñëpp laa bëgg. waaw mais bëgg Mimi lu si nekk lan moo nekk si bëgg Mimi lan moo si nekk est-ce mais dama ne bu may pro kay bu may jege man ñëpp xam nañ ne ñun naa fexe xut évidemment soxru ñu ñuuluñu biir waaw ñun naa fexe xam nga Sénégal fi mu toll daa bëri naa ak xol yu tàng ak xol yu ñuul yéen wuñ kenn jàmm man ku ma xam xam ne. fu ma génnee. mais maa ngi défendre parti bi maa ngi défendre président. non défendre ko kenn euh, si yaa ngi défendre parti yaa ngi défendre euh, euh, il reste cinq mille moom dese bi yaa ngi défendre président Macky Sall ak jabaram jooju première dame. waaw Marème Faye. mais juste yow Sénégalais yi a par moi man li ma seetlu mooy. yow ba ñu ba ñu nommé ministre ba léegi ku ne xam ne yow xam nga man xam naa ne ministre ambulant euh, euh, euh, ministre à mon bureau encore mooy ay sa sa bureau mën nañu wax ne mooy buntu école 3 ba ngay ngay grand place boobu mais ñëpp nañ jàpp na ba ñu nommé ministre ba léegi Youssou tu as radicalement xam sax wax naa juñu naa la ko nga wax ba wër ba mais tu as radicalement changé yow fi mu ne dafa mel sa salaire bii ñu xam ne dëgg-dëgg <laughs> utal naag jamono ya nga xam ne. merci <laughs> euh, <laughs> yaa ngi woon. Ah. nga xam ne ay wéccet nga yor. léegi nii yaa ngi turul en 4-4 dégg euh, euh, boobu xamoo lu yoto. waaw yaa ngi yor baa doole ak tey doo baa doole xam naa ah, mais fi mu ne yaa ngi yor ay millions moo tax ñu. astafurlah fu ma jëlee million tu as complètement changé radicalement changé Amath sama frère boobu. fii lañ ko fii lañ ko lottal euh, euh, euh, dégg nga ñëpp di xaar ñu jël kaan yi ak ñi jël kaan gi mais nga ñëw tenir un discours. waaw waaw waaw am na amoon ay jafe-jafe. ma ma wax jàmm. ak wax gi ñëw. waaw mais am seen juste lu xew. waaw mais wala yow laa bëgg. waaw mais ma ne jeexalee li nga ma. non bu ñu jeexal sama salaire laa ma ne préserver da koy fay ñun lu ñuy xaar si suñu responsable mooy ñu wàcc si base bi di liggéey si base bi demoon nga kër Ibrahima Ndoye noonu. jël ko fees su fees. waaw jandeer mm. gis nga nuñ fa indee électricité si village yi te loolu kenn fësalu ko. pour pourquoi ñu bëgg a fësal euh, fësal rek euh, jafe-jafe donc man kuy xaar si man kuy xaar si man may gën a xam taal bi mm. mais da nga xaar parce que loolu du suma liggéey fi mu toll. sama liggéey man ay affaire salaire sa man sa ko yaakaar nga ne man salaire dama téye fen wala xaalis dama téye fen man bu may tedd ñu bëri dañoo tedd baadoolo yi nekk fii tey di taxawal dañoo xamoon luy tedd man bu may lekk beurre pasteurisé boobu sept ans la donc man waxuma pour sama bopp duma ma koy wut pour sama bu ma amee nag jël boo ma mayoon milliard ma jël mais duma ma koo xam ne ki damay privilégié xam nga lu ñu bëgg si parti bi mm. mooy ñu gën liggéeyal Sénégal jox Sénégalais yi aussi exemple war leen ni ñun wax dëgg yàlla lu tax ñu fal ñu. Mhm. ñu ngi si di ko def. comprendre bàyyi xeexoo bi gën a am solidarité si parti bi parce que parti bi des fois dañ dut ànd di waxandoo di xëccoondoo di dóorandoo par door violence. kuy xaar nag si Youssou Touré actuellement muy wutal président Macky Sall noonu du ma ko wutal noonu Mimi Touré moog Mimi Touré lu may ñaan yàlla ak gouvernement bi yépp ñu ànd solidarité am seen biir. kenn bañ a xeeb kenn comprendre nga man ma kenn ku ma xeeb nag yaa ngi ku ma xeeb yaa ngi def erreur yaa ngi juum comprendre nga bureau ñàkk bureau gis nga sama école 3B ma nekk grand place boobu foofu laay amee mbooloo foofu laay defee samay comité si mbedd mi laay toog sénégalais yi di ñëw ñuy waxtaan des fois ñu teg ma sax lu ma attan mais loolu mooy sama rôle sama rôle du dem dugg si bureau climatisé toog bëgg naa ko xanaa bu may recevoir ay nit soma waa Guinguinéo waa Tamba parce que man je suis national am na fii ñuy rëy làmmiñ mbel mbel mbel mbel te amuñu dara seen bopp rek lañu am donc nañu fexe ba nga xam ne réew mi euh, dañ fi indi jàmm boo gisee ñuy seddal ñun du pour ragal ku xam yu su la xam ne ragaluma amul lu may ragal dudd naa tey noos naa tey te yow xamoo luy noos ak ñeneen ñeeg yooyu xamuñu woon luy noos xam nga boo bëgguma tudd sax ay repas parce que am na ñu koy euh, ndekkee di ko di ko añee xam nga ñun luñ bëgg réew mi jóge si jafe-jafe. lu xew lu mm. xew si yeneen réew yi ay Centrafrique comprendre ay liberia ak ay Burundi ay Libye ay Tunisie ay Égypte ñu fexe ba suñu réew rëcc euh, suñu réew du am jafe-jafe yooyu parce que jafe-jafe yooyu mooy suuxal réew donc dañuy ñaan opposition ak ñëpp ñu ànd ak ñu am ne appétit nag. foog ne dañoo am destin présidentiel gisoon ngeen ku amoon ki destin présidentiel ku gàtt kooku gis nga fu mujjee destin présidentiel si loxo yàlla la nekk comprendre nga si loxo yàlla la nekk donc si loolu nañuy wax jàmm woote jàmm di def jàmm bëgguñu kenn taal ay ñun nag jàmm la ñuy woote ah jàmm jooju buñ ko déggee xayruñ buñ demee nag ay sëtu ba ay taxaw ñu xam ñu mm-hmm. waaw buñ demee ba ay taxaw nañ xaar ba 2017 d'accord alors yesterday euh, monsieur le ministre yow en conseil tout court. Euh, ministre conseil yëpp rek waaw. <laughs> fu nekk rek maa ngi fay mos. nu ma la ko waxee rek ministre ambulant la fu nekk maa ngi fu nekk maa ngi fay fël fu nekk ma <laughs> des fois ñu jox ma chaise des fois ñu jox ma banque bu gàtt ak sama njoolaay <laughs> ma toog sama gi jóg sama om yi di métti doo mën a taxaw loolu daal laa fi nekk. mais yàlla baax. borom asma laa aussi je suis asthmatique des fois may taxawal si bedd bi poussière bi du ma dugg ak leeg yooyu <laughs> waaw ngelaw li ba asthme bi xaw maa rey mais loolu yëpp si liggéey bi la rek. kon <laughs> président Macky Sall ñu ngi lay ñaanal ñu bureau. <laughs> ndax bëgg naa ñëw si bërëb présidence sax bëgg naa ñëw toog si bureau ah ndax ñëw naa fay say fële ba. Ah, banque de euh, la nga nekkoon banque hmm. ñëw naa fa. Hmm. mais président bëgg naa ñëw nag toog nag si sa bureau. monsieur ministre euh, euh, conseiller ñu lay remercier ci dalalaat bi di la bàyyi la tàggatoo Sénégalais yi. waaw maa ngi lay gërëm di gërëm sa télévision. di gërëm aussi sa promotion boo mérité nag bien que sama noon nga hmm. ay nga fi wut si woon wante amoo ko <laughs> te nga fexe émission bi jàll di la gërëm si sa nomination parce que mérité nga ko am nga xel xarañ nga euh, yaakaar naa ne man mii tey jii gannaaw yàlla ak yonent bi sama ndey ak sama baay bu ma Sénégal yi xamee lu si ëpp si yow la ak télévision Sidi Lamine Niass rajo télévision mm-hmm. Sidi Lamine aussi dama koy gërëm parce que lu suñ diggante ñagas ñagas ñagas fuñ ko woowee fu ñu wooyee teleem wala rajo point de presse ñëw donc dañ lay gërëm yow aussi te réeréewuñu mbir que poste bii ñu la nommé da nga ko yëkkati parce que sa fees du fees sa émission yi ngay def rek c'est émission émissions trop suivies d'ailleurs suivre ko fu nekk day boo kii kiyee dañ may woo ñu nekk Europe ñu nekk fu nekk donc di la ñaanal di ñaan aussi sa patron xaw ma kuy sa patron mu gën naa jàpp gën a dëgëral sa taxawaay sa salaire bu ndaw bii dégg naa cent mille cent cinquante mille ngay am xaw ma mu defal la ko au moins 3 ba 4 millions. di di di di di sant aussi encore une fois de plus Ibrahima Ndoye. Mm-hmm. conseil spécial du président. bureau ngay squatter xam waaw maa ngi bureau mais aussi mu ngi liggéey jandeer mu ngi liggéey fu nekk ku bëgg président la. di sant aussi defuma ko pour neexal ko mais lu nekk sama xol la di sant euh, madame Faye madame Sall la première dame si taxawaayam. bëggul kenn maire mu ngi si ñëpp mu ngi si biir nit ñi mu ngi si biir askan bi du toog pale boo ko bëggee gis gis ko extra extra. voilà alors ñëwee ma si bu baax Youssoupha yow suñu diggante ba ma nee dama dama ñëw def seeg yow émission kër ñu bëri yaa ngi jëlee si sa xarit bi may wax donc yow dañoo yàgg loolu. ah da bëggoon ma wax luy tàkk rek. loolu moom nag moo tax émission je je émission dina jàll sax. bu jàll de yaa xam doo ma wax loo ay de. wax dëgg yàlla. di nuyu aussi. di nuyu di nuyu waa di nuyu aussi di nuyu aussi opposition. di euh, opposition nuyu Pape bokk gis-gis. Euh, Pape nit ku baax la woon. nit ku yiw la woon. wax dëgg yàlla. la woon bi nag. lu meloon na continuer di ko mel parce que ñun bëgguma dal si kawam. bëgguma dal si kaw Pape Diop na xam ne wax bu nekk am na tontu te kenn gën te ñaaw làmmiñ sa moroom. na xam discours politique dafa war a civilisé discours politique dafa war a yiw ñun mënuñ ñoo xëbal mënuñ ñoo xoqatal du ñu ñu ñu xëbal même président Macky Sall yàgg naa leen koo wax yaru na maandu na tey na mais du ku ñuy xoqatal donc seen discours yooyu nañ ko bàyyi. parce que nag buñ si continuer ñun ñëpp xamante nañ Sénégal danañ continuer di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñu nekk ñi prison mm-hmm. ñoom ñëpp ñu libéré détenus yeeg sàcc yëpp di leen ñaanal ñu recouvrer la liberté. parce que yéene wuñ leen ko ma ne non mais Karim Wade si boppam bu président Macky sañoon du nekk prison man dama koy ñaanal mu am ndam génn mais où est le problème suñu frère la Karim Wade suñu frère la pourquoi ñu koy iñaane loolu ñu fi nekkoon ñoo koy def boobu ñu ñuul ñu xol nekkatuñ si nguur yi. Ah. loolu tàggu xol yi ñoo ko doon def ñoo doon gis nit bañ ko di ko sonal mais ñun Karim. dañ koy ñaanal moom ak yeneen détenu yi euh, kii si doomi Cheikh Tidiane si. Euh, Thierno Ousmane si. Thierno si. Mm. d'ailleurs sax sama mbokk la ñoom ñëpp dañ leen di ñaanal ñu génn si jàmm ñu mën a prouver parce que justice justice dafa indépendante fi mu toll mais ñaanaluñ leen dara lu bon ñaanaluñ leen dara lu ñagas. nañ ñëw parce que ku nekk am nga njëriñ. d'accord si dëkk bi. alors Youssou ñu ngi remercier di remercier euh, sa waa kër man. su ma remercier am na koo xam ne su ma ko remercier daanaka dugal naa ci famille bi yëpp muy sa soxna soosu di di awa man awa Touré laa koy musuma xam sant bi nag Touré la laa koy laa koy. la moo ko togg aussi. Euh, non <laughs> Saalum la fi nga bëgg a jëm xam naa ko moo sa kër gi moom mooy sama deuxième maison mais c'est c'est grâce à awa ndax fii ñëw moom may defal yu baax. toog sama kër yaay laay toog di ko woon. kafe ak meew moom ko xamal. naka <laughs> awa wax yaa xamal kafe ak meew mu xamal ceeb yu neex échange képp yaa borom ceeb yu ma man yaay sama xarit maa ngi ci yow. donc di nag euh, euh, waa kër gi yëpp ah, ah xale yi bëgguma lim wala ma lim sa doom yi. Ah, lépp <laughs> su ko nee naa bàyyi wax. non kenn mënu maa ceeb sooro dala kon ñu ngi tamit su koy fa ak ñëpp daal toute la famille Touré di remercier sunu partenaires yi di remercier nag bu baax a baax a baax sama équipe bii ma àndal sama doom ji ma jàkkaar lool ak ah xale bu aay bee papi mboobu yow ay maan ah preneur de son bu baax boobu. Euh, nga xam ne ku bëri jikko la ak tamit euh, à droite euh, petit Ndoye Ndoye Mali Maram ka dendal nag moom it ku doy waar moom it si groupe doy waar la bokk di di Mamadou Dia mbokk yi beneen dimanche beneen face to face